waaye di feddali sunu njëbbal ak sunu yaakaar ak sunu kóolite ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di wax jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanaat bu baax maam Serigne Jéeri Waadaan Sugu yàlla na ko sunu borom delloo fayal ci barkeb soxna Mariama Bousso xam ngeen ne noo ngi am mbégte yaatu li waral jataay bii ak teewaayu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci barab bi jëmmal ko muy njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne bi sëriñ bi jàppe bis ba tey boobaak léegi seen ñaan ak seen taraanga ak seen taxawaay moo ci jiitu tey jii nag di altine ñu nekk ci pàkk bu sell bu laab bii ci buntu kër sëriñ Moustapha Sougou nga xam ne këram gii day këramu fajukaay aajo bis bii nu ci fàttaliku jàmbaar joo xam ne taarix duutu ko fàtte histoire duutu ko fàtte yoonu murid du ko fàtte muy Serigne Dame kayal mu baax ma yàlla na nu ko yàlla dolli fayal Serigne Moustapha Sougou daan ko amal fii daan ko ànd ak mbokk jullit yi yëpp ak mbokk taalibe ak njabootu sëñ jiir waa daan sugub gi yëpp ak njabootu sëñ Tuubaa gi di ko dundal ba yàlla dogal li muy dogal mu tànn dëkkaale ji ak boromam bàyyi fi doomam ju baax jooju muy sëriñ xaadim Sougou yàlla yàlla dool ay leeram mu woyal liggéey bi yaatal ko lool ànd kook njabootuk sëriñ Moustapha Sougou gi yëpp ba yàlla ñëw ak dogalam lii dab Cheikh Mohamadal Fadal muy dogalub suñ boroom mu toogee jataayub sëriñ Moustapha Sougou moom day wax sax na duma xalifa ab sëriñ Moustapha Sougou ndax xalifa dafa diis man ab taalibi rek laa muy jëre ñoom ci yoon wi sëñ Fallou Sougou yàlla na yàlla guddul ko fi maa ngi ñaan ko wax ne sëriñ Fallou Sougou yàlla fi yàgg te wér yàlla na nga bari jàmm nañ ko waxaat ca kaw sëriñ Fallou Sougou yàlla na fi yàgg lool te wér ku sa baat gën a jëm kaw yàlla nga am ngërëmal sëñ Touba sëriñ Fallou Sougou yàlla na fi yàgg lool te ànd wér ak jullit ñëpp ak taalibey Sëñ Tuubaa di ñaanal bu baax sëriñ Maxtaar Sugu mii nga xam ne moo fi toogee jataay maam sëriñ Jéeri Waadaan Sugu te mate ko sëkk danga koy ñaanal yàlla ko sunu kàddu fekk ci jàmm bis bii sëriñ Fallu Sugu ànd koog njabootuk sëriñ Moustapha Sugu gépp su mën a njaboot gi ñëpp tabbi nañ ci biir taalibe yeeg soppe yeeg wóolu yeeg am di jàmm yëpp kenn ku ci nekk mën nañoo wax ne sëñ Fallou daa woote bis bi rek waaye bis bi ñëpp ko bokk kon nag yàlla yàlla fere ndaw ñu kenn ku ci nekk ni nga ci jàppee ñëpp gis nañu ko ndax day bisu ngërëm di bisu fajukaay aju waaye xam ngeen ne délégation yaatu na lool dañuy njëkkanteeg waxtu wi ndax waxtu yi moo xaw a ginnaaw teewaayu kilifa yi xam ngeen ne sëñ Abdul Karim Mbakke moom sëriñ Muudu sa Dieng léegi la jóge ñaanal ànd ak sëriñ bi bis bi man damaa wax ne délégation bi moo ci jiitu waaye ci biir délégation bi itam sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñaa Abdul Lakram Mbàkke moom it noo ngi rafetlu bu baax ab teewaayam ci bis bi ak taxawaay bi mu ci am moom it teew na fi teewaay bu rafet ànd ak njaboot gi yëpp ak taalibe yi waaye xam ngeen ne sëriñ Abdul Fatah Mbakke moom sëriñ Abdul Karim Mbakke moom di kenn ci sëriñ bi teew na fi ak teewaay bu rafet waaye xam ngeen ne sëriñ Ismaayla Mbakke mu baax mii moom sëñ Mudal Abdul Xaadar mu ngi nii ci jataay bi di kenn ci sëriñ bi waaye di kenn ci njabootuk sëriñ Jéeri Waadaan Sugu gi te xam ngeen ne sunu bisu turandoo boobu la neuf la jàpp nañ ko moom mii di ko taxaw di ko ànd ak njaboot gi yëpp sëñ Ismaayla yal na yàlla guddal fanam danañ gën a ñëwaat ci moom. waaye ba tey ci teewaayu kilifa yi ñu ràññee ci biir délégation bi njabootug sëñ Jéeri Waadane Suugi gi niñ ko waxee léegi kenn disul waaye bu ñu tëdd sëriñ Ahmadou Xari Sugu moom sëriñ Bamba Joor moom it teel naa ñëw lool léemu bis bi waaye indaale taraangeem gu yaatu yebal ak njabootam. moom it noo koy sant di ko gërëm waaye xam ngeen ne sëriñ daam sugu moom sëriñ daam joor xaritu dong yi mu ngi nii toog di kenn ci sëriñ bi di mbokkam waaye di xaritam di wéttalam ci wet yépp bis bi saa jot mën nañoo wax ne bokk na ci ñi fi njëkk ak ñi fi mujj mboolem ñëbatu sëñ jéeri waa daan sugu gépp taxawaay benn taxawaay la sëñ daam yàlla yàlla guddal soo fan waaye xam ngeen ne sëriñ sugu moom sëriñ jëmm sugu moom it mi ngi ci biir baas bi ànd ak sëriñ bi bis bi indaale ay tarangaam noo ngi rafetlu bu baax ab teewaayam waaye sëriñ Mor Jéeri nu gën koo miin ci sëriñ Muudu Jéeri moom bàyyi sëriñ waa daan Sugu mi ngi nii toog di sunu wëlëre di sunu soppe nu ñëpp moom damay faral di wax ne ab jataayam ku koy fere kant juróom yii nan ko bàyyi xel ci ab jataayam ab jataayam moom sëriñ Muudu Jéeri mii kenn du fa mar kenn du fa mar waaye jataayab sëñ Moodu Sugu kenn du fa mer waaye kenn du fa xiif kenn du fa ñàkk ñàkkug taalibe kenn du fa faat waxtu kon nag Sugu Faar yàlla yàlla guddal soo fan moo ak sëriñ Fàllu Sugu mii man ne maa wax ne di ñaari jëmbu jenn jëmbu rekk la boo gisee sëñ Moodu Sugu mën na la waat ne gis nga sëriñ Fàllu Sugu waaye boo gisee sëriñ Fàllu Sugu mën na la waat ne gis nga sëñ Moodu Jéeri Waadaan bis bi taraanga ju mat la ci def ànd ak njaboot gi ak taalib yi ak soxna yi mbokk taalib yi yëpp ne leen bisub sëñ Fallou mooy sama bis lu ci waaye def rek mën nga ko defal sugu faar yàlla yàlla guddal soo fan waaye itam xam ngeen ne sëriñ Maxtaar sugu moom sëriñ Waadaan sugu moom it ñu ngi rafet lu baax ak taxawaayam ci bis bi waaye sëriñ Ahmadou bal moom sëriñ Maxtaar sugu mi ngi nii toog moom it di kenn ci sëriñ Fallou sugu sëñ Ahmadou Bal ah, sëñ Ahmadou Anbal mu baax mbii nga xam ne boo ne sëñ Ahmadu baax na rek mi ngi mel na ngeen suukar neex na muy ku baax loolu am taxawaay loolu ci waa daan waaye di ko jotal sugu faara taxawaay bi rafet na loolu yàlla yàlla guddal soo fan waaye xam ngeen ne sëriñ daan sugu moom sëriñ maxtaar sugu moom it noo ngi rafet bu baax ab teewaayam ak taxawaay bi mu am ci bis bi yàlla na ko yàlla fay waaye sëriñ ahmadu sugu moom sëriñ bamba sugu di boroom xam-xam di kilifa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne alxilmu ayatul islam xam-xam daal mooy dundal islam muy acteur bu am solo ci yoonu mu yal na yàlla guddal fanam mi ngi nii toog ànd ak sëriñ bi bis bi boobaag léegi saa bu ñu bis bi rek mi ngi woo sëriñ bi lépp lu koy gën a taaral ndax moom dafa nosu waaye daa bëgg nosu kon indaa lay taraangaam yi itam yu bëree bëri ngir rek bis bi jàll kon noo koy bu baax muy fa tabaarakallaahu sëñ Ahmadou Sougou moom sëriñ Bamba Sougou yàlla yàlla guddal fanam mi ngi ci biir jataay bi waaye ne sëriñ Xaadim Sougou moom sëriñ Bamba Sougou moom it noo ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam teel na fee ñëw indi ay taraangaam yebal njaboot gi def fi ñaan bu baax yàlla yàlla guddal fanam waaye itam sëriñ Ahmadou Sougou moom sëriñ Mamadou Sougou mi ngi nii toog defe naa ne bis bii moom miin na ko lool muy indi taraanga yu bëri démb lañu woon mooy borom sisas ak beneen barab ba tur bi ndax français bi kenn fat naa ko tënk rek muy barab boobu ndax su ma ci duggee dana yéeme waaye barab la boo xam ne tudd tur yi moo ma xaw a jafe kenn fat falaas nu déggee ko noonu bamba boo ñëwee yàggale ko muy bis bu mag boo xam ne saa du nekk dafay amal bis boo xam ne da koy jagleel seen njéer waa dan sugu nga xam ne réew mi ak bitim réew barab bu mu dem rek balaa njëkk a def dara dana fa taxawal maamam bisub sëriñ Ndiéro Adel Sougou fàttali ko defe naa ne ba tey kenn ku ci nekk bëri na ñoo nga xam ne ñu ngi topp xencu jeexatu sëriñ Ndiéro Adel Sougou te ci bisa ci bisam boobu rek la jiw yàlla yàlla guddal fanam waaye xam ngeen ne sëriñ Ahmadou Sougou moom sëriñ Xaadim daam joor moom it ab taxawaayam rafet na bu baax noo ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam waaye sëriñ Bamba Sougou moom sëriñ Modou Naar Sougou moom it def na fi taxawaay bu rafet ak taraanga yatt yal na yàlla fay ko yiw waaye sëriñ Afiya Mbacke moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdoul Akram mi ngi ci baas bi moom it bu baax sëriñ bi ak bis bi ndaale taraanga ju ànd góorlërëm ak mbokk yu baax yëpp sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Cheikh Mahmoudan ñu gën koo xam ci sëriñ Xaadim Mbacke xasida fii la yendoo ak sëriñ bi def fi ñaan yëkkati fay xasaay du yaatu yitti rek daboon ko moom noo ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam waaye xam ngeen ne sëriñ Jiiri Mbàkke boobi moom it taxawaayam rafet na lool ak sëriñ Mor Touré noo ngi koy sant bu baax sëriñ bi nee na gis na taxawaay bi yàlla yàlla fay ko yu ci barkeb sëriñ Moustapha Sougou waaye sëriñ Sidi Amar moom sëriñ Mouda Amar mi ngi ci baas bi ànd ak sëriñ bi bis bi ak taali bi waaye sëriñ maam Gumba Amar moom sëriñ Muda Amar teel naa yegg si léegi ci bis bi ci suba la ñëw ànd ak taalibe yi ak njaboot gi ak wóoli rek am di jàmb yëpp indaale taraanga ju bëri yal na yàlla fay ko yu ci barke sëñ Moustapha Sow waaye sëñ Murtada Amar moom sëriñ Fadlu Amar di waxtaankat bu mag mi ngi nii di kenn ci kilifa yi waaye yàgg ak sëriñ Moustapha Sow jataay bi miin na ko lool sëñ Mourtala Amar moom sëñ Fallou Amar yàlla yàlla guddal soo fan di xam-xam waaye sëñ Abou Amar teew na ci bis bi sëriñ Taala Baabu Mayaay imaam moom it fa tabaarakallaahu noo ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam waaye xam ngeen ne sëriñ Makhtar Seck Thiénaba ak mbooleem njabootu Thiénaba gi yépp teew nañ ci bis bi sëñ Mourtala teew na. moom sëriñ Khadim Amar ak njabootuk Darmank gi yépp waaye njabootuk sëriñ Thiénaba Seck gi yépp bàyyi ko nañ Thiénaba ñëw ci njiital Serigne Makhtar Seck Thiénaba ak sëriñ Serigne Babacar Seck Thiénaba seen taxawaay rafet na lool ni ay taraanga bàyyi ko Thiès Serigne baa ngi leen sant di leen gërëm waaye alaaji Maguette Badiane Thiès ah, di kenn ci sëriñ bi yàlla boole kook sëriñ bi. mu taxawal société bu am solo doon ko am taxawaay ci réew mi rawatina ci ndaw ñi di jàppale ay ndaw di leen taxaw ba nu mën a wéyal seen bopp bis bii mën na wax ne bokk na ci ñi ko sponsorisé noo ngi koy sant bu baax te di ko gërëm waaye xam ngeen itam sëriñ di Dieng dëkk Njenne su ko defee nu dalal sëriñ xaadim kebe moom sëriñ mbàkki madina mooy tabisi noonu ci jataay bi nu dalal ko moo ànd ak mbooleem kuréel gi mbaaxu àndal ñëpp di kenn ci sëriñ bi di sunu mag di sunu xarit am taxawaay lool ci xasida yi sëriñ xaadim kebe jërëjëf macha allah kon su ko defee sëriñ sii di jenn moom sëriñ moom teew na bu baax ak waa njënd gi yëpp waaye sëriñ Mama Babou moom sëriñ Idrissa Babou moom it ab bu rafet na loolu sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm waaye sëriñ Moustapha Diop imam moom mi nga xam ne moo féete fii ci kër sëriñ mbay Sarr gi di kenn ci sëriñ bi sëriñ baa ngi koy sant mi ngi koy gërëm ak taxawaayam bu rafet waaye sëriñ Khalil Sidibé Bilal sëriñ baa ngi koy sant muy noddukat di ko baax yàlla yàlla fay ko yiw waaye xam ngeen itam bu baax sëriñ Basirou Mbacke moom sëñ Abdoulaye Karam sëñ Abdoul Karim Mbacke moom Serigne Modou Bousso waxaat nañ ko ak njaboot gi macha allah waaye xam ngeen itam mbokki soxna yi sunu maam yi ak sunu waajur yi soxna Kunta Mbacke moom Serigne Modou Bousso jàng di kenn ci bis bi ah, yàlla boole woon kook Serigne Moustapha Sougou muy ku baax loolu am taxawaay ci njaboot gi moom it teew na fi teewaay bu rafet indaale ay taraangaam. muy soxna Kunta Mbàkke moom sëriñ Muudu bu sa jàng yal na yàlla guddal fanam waaye soxna Jàmmi Mbàkke moom sëriñ Abdul Asiis di sët ci sëriñ Baara moom it am taxawaay bu yaatu ci bis bi sëriñ baa koy sant waaye soxna Ndey Sugu moom sëriñ Bamba Joor ñu ngi rafet lu baax ab taxawaayam soxna Ndey Sugu itam moom sëriñ Maxtaar Sugu ñu ngi rafet bu baax ab taxawaayam soxna Ami Seex Sugu moom sëriñ Maxtaar Sugu ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam njabootug soxna Binta Sugu gépp teew nañu kenn desul njabootug soxna Binta Salaam Sugu gépp teew nañu kenn desul ci njiital sëriñ Modu Baabu waaye njabootug sëriñ Moustapha Sugu gépp niñ ko waxoon ñoom ñëpp ci njiital soxna maam jaara ànd nañu ak sëriñ bi bis bi nee na ñoom sëñ Fallou mii duñ ña rek sëñ Fallum sëñ Moustapha Sugu waaye nee na ñoom waajur lañ ko jàppee sëriñ lañ ko jàppee muy njabootu sëñ Moustapha su gépp ci njiital soxna maam jaare kenn ku ci nekk ab baay faal nga ci bis bi takk seen laxasaay ña nga ca waaño ña nga ca dalee kenn ku ci nekk lu ci waay man rek def nga ko yàlla yàlla fay leen aw yiw ci barkeb seen waajuru wu sell wa waaye xam ngeen bu baax ñii nga xam ne itam dañ leen a cëral ci bis bi nga xam ne dañ doon kenn ci sëriñ Moustapha Sougou doon kenn ci péncum waa daan Sougou doon kenn ci sëriñ Daam Sougou sëñ Moussa Sougou fonkoon noonu leel ah, ñu tànn leen sëriñ Fallou Sougou tànn leen def ci lu am solo cëre leen ci bis bi buñ ci tuddee rek ku ci mel ne sëñ ibraahima Ndong doonoon jàmbaar waaye doonoon royteef moom it ak njabootam gépp teew nañu ci njiital sëñ Abdoulaye Ndong ak njabootu sëñ Ibrahima Ndong yëpp yàlla yàlla fay la new yiw waaye xam ngeen ni itam sëriñ Thiam Mbay moom it dañ ko ci sargal mu am ci cër bu yaatu muy sëriñ ñaama mbay ñu tànn ko ci moo am ci ab cër bu yaatu moom it ak njabootam ñëpp teew na ci njiital sëñ daam mbay ak njabootu sëriñ ñaama mbay gépp waaye xam ngeen ne sëriñ paate amar moom sëriñ misbaax mar ab taxawaayam yaatu na lool ci bis bi indi na fi ay taraanga soññu na taalibi yi teew na teewal na yàlla na yàlla guddal fanam ci barkeb sëñ Tuubaa waaye njabootu sëriñ Caama Mbay ci njiital sëriñ Daam Mbay muy sëriñ Njaama ñoom ñëpp teew nañu indi ay taraangu yaat yal na yàlla guddal seen fan ñoom dañoo am cër ci bis waaye njabootug soxna sa mbay moom it sëriñ bi da leen cee jox ab cër muy njabootug soxna sa mbay seen délégation ñoom ñëpp seew nanu waaye buñ ci tuddee rek sëriñ Moodu Seen moo jiite délégation bi suñ ko tuddee dana mën a yóbbaale géew ñëpp waaye soxna maam bu sa sugu moom sëriñ maam ma sugu teew na ci bis bi soxna Ndey Sugu moom sëriñ Waadaan Sugu teew na ci bis bi waaye sëriñ Bamba Sugu moom sëriñ Mama Sugu teew na ci bis bi sëriñ Saaliw Sugu moom sëriñ Xaadim Sugu ñu ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam sëriñ Maxtaar Sugu moom sëriñ Bamba Joor ñu ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam sëriñ Moodu Njaay moom sëriñ Allu Njaay Gede ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam sëriñ Murtada Njaay moom sëriñ Allu Njaay Gede ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam bàyyi Serigne Ndiaye moom Serigne Aliou Ndiaye Guédé ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam sëñ Ababacar Sougou moom bàyyi Serigne Dior Sougou ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam soxna maam Bousso Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam soxna maam Awa Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam Serigne Khadim Amar jiimul ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam sëriñ Xaadim Amar jiimul ñi ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam fa tabaarakallaahu délégation yi yaatu na lool waaye dañ koy tënk rek waaye xam ngeen ne honorable député sëriñ Cheikh Thioro Mbacké léegi la fi jóge te na fi ànd ak délégation bu yaatu muy honorable député sëriñ Cheikh Thioro Mbacké yàlla yàlla guddaloo fanam di kenn ci sëriñ Fallou Sougou moom it am na taxawaay bu yaatu ci bis bi noo ngi koy jottali ak cant mu jottali na ko ci président Serigne Bassirou Diomaye Diakhar fay ak président Serigne Ousmane Sonko ñoo ngi rafetlu bu baax ab taxawaayam waaye xam ngeen ne soxna Fatim Mbodj moom it honorable député moom it bokk ci njaboot gi teew na ah macha allah ñëw ànd ak soxna Khady Babou ak délégation bi mu àndal yëpp muy soxna Fatim Mbodj honorable te bàyyi ko fa sori yàlla yàlla guddal fanam. waaye xam ngeen ne site internet bii ak rajo bii ñu doon defee waxtaan yi jamono ji yëpp muy site bu am solo Serigne Fallou Sylla moom ko ñu tuddee ko Salam TV teew nanu ci njiital Serigne Modou Mbaye Touba bu ci kanamee dana fi jël kàddu am na taxawaay bu yàttu ci dëkk bi moom it ak Serigne Salim yi nga xam ne booba ak léegi ñu ngi ci bis bi rek ak lu koy taaral waaye Serigne Cheikh Kaara Mbacke moom Serigne Baara Mbacke moom Serigne Mahmoudan noo koy sant bu baax rajo bi na xam ngeen ne mooy asalaamu FM moom jataay bi yëpp ñu ngi nii ko def direct Serigne Fallou si la yabal leen fi Serigne ci njiital Serigne Modou Mbaye boobaag léegi jataay bi yëpp ñoo ngi koy def direct ci rajo bi di def direct itam ci site bi mooy ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm waaye xam ngeen ne bu baax sëriñ Yoro Nger Kédougou teew na fi ak waa Kédougou gi yëpp ñu ngi rafetlu bu baax ab teewaayam waaye soxna Fatou Sougou moom Serigne Bamba waa daan moom it ab taxawaayam rafet na bu baax moom it fa tabaarakallaa am na taxawaay bu yàgg soxna Fatou Sougou moom Serigne Bamba Sougou moom Serigne Ahmadou Tasrif moom it teew na sëñ xumma maa ko wax ñëw na ah, moom it borom liggéey bu rafet bi teew na di yaatal liggéey bi kon daal day mel ne délégation yi ñi ngi noonu ñi ci des rek bu ci kanamee ko yaatal sëriñ Fallou dara daramaan mii moom it di kilifa di muallimul Qur'an waaye di imam di mbokkom ñu baax ñëpp yàggoon ak sëriñ Moussa Sougou moo war a def waxtaan wi mi ngi nii teew sëriñ Xaadim Ñang sëriñ Xaasim Ñang moom sëriñ Mbàkke Ñang ñëpp ñu ngi ci jataay bi ci tënk daal ñëpp ngi fi su ko defee rek no afdani man lillahi xaala jaa rabbi bima yasrahu wal asana xar fa jaa bi jaayi afdani لله خال جاء حمدي لرب الكريم بالله شريك له وسدي اليوم من زادقا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا هاتوا إلى الذي عمان مواهبه لجملة خلق ما رتارهن براء نجيته جلاء ومن وكرمني تكريمه دين وهل لبلا خان بريئا رمان عبي جميع ريقان معا متاما ينيحني صريفا إنوه قراء هدى مدى المستقيم أنزال خواد إرام جميع الورى يهدي رداء موتى ما أنا génni seen rajo Assalaamy FM mi ngi ànd ak yéen liggéey bi waaye dégg ngeen taalib sëriñ Bamba bi fi mu bàyyee muy sëriñ Xaadim Kebe di ku baax di koo xam ni kenn ku ne xam na fi mu toll ci sëriñ bi waaye kenn ku ne gis na fi ko sëriñ bi toll waaye sëriñ Fallu ñu ngi sant yàlla bu baax ci jitaay bii nga fegook sa mag ju baax jii di sëriñ muudu ak bokk yëpp woote kat doo koy def waaye lem toog jël temps ji ku koy def amar yàlla na la yàlla defal jàmm sugu dama ni woote aw la ma ña koy def waaye toog jël temps jikko la koy doon sëriñ xaadim baaw ñu defat lu bu baax jitaayu sëriñ Fallu mii toog ne sëriñ Xaadim Kebe moom a ah, namm naa ko lool jitaayu sëriñ Fallu mu baax mii toog moom Seex moom Muntalaa moom sëriñ Fallu di baax nag loo am ci yoon wi sa jikkoo ko may jëmm yii nga feddool di si Abdoulaye mii ñan ak sa diggante ak sëñ Xaadim Kebe mii àndee woog moom ni leen Mbàkke laa sant sëñ Fallou sa maam danga àndeek ñoom ni leen taalib sëñ Bamba ngeen waaye man tam taalib sëñ Bamba laa xool seen tolluwaay natt ko Xaadim Kebe la ko jox jërëjëf duma ni guléet sama diggante ak sëñ Xaadim Kebe xool sa diggante ak sa bokk yi nga xam si ne ngeen a bokk sëñ Bamba li olof Njaay naan booy sol am ndox ci biteel maanaam ka lay dand mooy xam fa ndox ma toll waaye yow ko tiim sax doo xam fa ndox mi toll ah da ngay jékki-jékki mu tuuru waaye noonu nga def ñoom da nga leen a dand xool sa diggante xool seen diggante ak sëriñ bi fi leen sëñ bi toll ak fen ak ak it nag maam fi sëñ bi toll ñoom ci ñoom ñii nga téye leen ci loolu yal na yàlla sàmm defal la jàmm may la fan gudd ànd wér ah sëriñ Modou jërëjëf. ñu ngi rafetlu bu baax jitaay bile rafet na waaye rafetlu nan ko sa digganteeg sëñ Fallou mii bi ngeen bokkee li ngeen bokk waaye seen jikko moo leen liggéey nit ki dina bokk ak moom lañ bokk ak moom lépp te du séq ak moom na def mu ne ko maa ngi fi mu ne ko mbaa dara mitul mu ne ko déedéet waaye nii ngeen ànde ginnaaw bu ngeen bokkee li ngeen bokk ci mu leen ko séddoo seen jikkoo leen liggéey loolu nag rafet na lool te rafetlu nañ ko di sant bu baax di jël nuyoo soxna yi di ko teg ci loxob maam jaara soxna maam jaara bu sër keroog bi ñuy def émission bi ca yaram ba ak tegginam ya dafa dugg wax wax ju am solo ñoom sëñ Fall ñoom ñi ñëpp kenn ku nekk wax sa diggante ak ni la sëriñ bi def kon nu ma lay def nag nam la defa tax waaye koo xam noo koy def diitu xam nu mu lay def sëñ Fallou farak sa mbër ci aar bu nee léew-léew ñuy nëbbi telli ni ko jege ji suuf keek xool nga faxas ginnaaw ko ci daa ko doxal foofa par par la fa may moo mbër waaye kii nga xam ne si ni mooy sëriñ bi <laughs> yàlla nañ ko yàlla fayal dama ne ku amul sër bu la neexee gemb waaye doo nga leen ñu xam ne yumi foo dem yaay daan ah loolu sëñ Bamba rek koy def ko sama sëriñ bi mag ñu baax ña danoo toppee woon sëriñ bi gëm-gëm ak yëg-yëg ak wóolu moo tax sëriñ bi lu te mais ah mais sëñ Fallou sa maam a mën a gënale samaam maam moo mën a gënale da ngay bàyyi say bokk dem ci sëñ Bamba mu gënal nag say bokk sëriñ bi noonu lay doxee dangay bàyyi say bokk dem ci sëriñ bi ni fa jàng sëriñ bi def li muy def ci yow ñëw gënal nag say bokk nga toog ab diir sa diggante ak say bokk dara lu gisig waaye sa wàllu bopp yaa xam ni xëjul sa biiri bokk xanaa xamoo ni sëriñ Bamba ni muy def ak nitam tuut ma mënu ko yàlla na ko yàlla fayal kon daal sëñ Fallou. ñoo ngi bég bu baax ah, Bamba Bamba ñu ngi lay jox sa wàccuwaay kenn ku ne xam na ni fii ngay waaje fii ngay wallee wàllee jikkoy ginaar nga yor boo xëyee mën ngaa dem fori fu ne waaye bu jant bi soo a ah, ngudul rek nga jëm ci kon yàlla na la yàlla defal jàmm si nga sëriñ bi nii nga def sa bokk yii koo ni nu ma lay def nam la def a tax ñit ñi amatuñ ak jot bay jéem a laal fenn di ko jot waaye li wér mooy lii nii jikko ju defe rek la ko may ak ñàkk a say bokk fas nga yéene mbokk mu yëkkati kàddoom dugal ko ci sab nopp dooni foofa kat sori na danga naan ku fay dem fan ngay jaar loolu nag moo la may lii waaye jëm yi toog jëm yi toog ku leen gis xam ni amuk jot taxul ñu toog fii danoo xam ne bokk na nag yow bis bi te am nga foo xam ne féete nga leen fa ci bis bi rek nga am na ku lay fay si na la fay si ci fii ku lay lebal na la lebal si fii te bis bii nag doo yemale ku fi ñëw ak ku fi ñëwul kon yal na yàlla sàmm dafa la jam waaye nag ñu lay santal jëmm ju baax jii di sëñ anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa ummati ajmain ixwata alxuduri assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu arfau hadihi alkalima shukran li الشيخ محمد المصطفى السبو لا أرفع الكلمة لمحاضرة كلمة وجيزة إن شاء الله لإبداء ما فيه من شكر wa taqdir Cheikh Mouhamed Moustapha Sougou ayadahu llahu wa nasarahu wa raahu wa ayada llahu xalifatahu wa nasarahu wa raahu Cheikh Mouhamed al Moustapha Mouhamed al Fadil Moustapha Cheikh Mouhamed al Fadil Moustapha ayadahu llahu wa nasarahu wa raahu wa xafidahu wa abqaahu fiina dufran lil islaam wa lil muridiya wa li usrati Cheikh Jëri Wadam Sougou maa ngi sant bu baax ci teew gi ma fi teew def naa nag ay moyens yu ay ay ay effort yu yu yu tar nag bi may ñëw waaye borom bis bi moom ma ko jaral ñëw moo fi nag en tant que ak yi moom yooyu moom dama dama cee nopp woon ba xaw a yàgg géej naa ci jataay yi itam te it doomi soxna yi nañ ma baal incha allahu wax ji lépp ci ñoom lay jëm ma maanaam ñëwuma ngir tagg sëñ Fallou mi de damay ñëw ngir wan ko kan mooy sëñ Moustapha bëgg itam doomi soxna yépp defaraat seen toogaay ñu roy sëñ maam yi jot na sëkk nag ndax folklore bi dafa bari ci yoon wi lool te doomi soxna yéen yéen ci na répété de am na ñoo xam ne gañe moom moom gañewuñ dara parce que boroom caq borom baatu neen ak boroom caq dañuy moy moytoo sangoo léegi-léegi dañoo de dañuy toll ci jamono boo xam ne nag jafe naa waxe lool man sax yàlla dogal na bàyyi naa wax fu bari moom bàyyi naa ko bàyyi naa ko ixtilatal xaabil bil naabil nit ñi xàmmee tuñ peri wurus yi ak nefere yi moo tax man bàyyi naa wax fa bare bari si suñ fàllu moom jaral na ma ko moom waaye man waaye man moo wax di yàlla jataay yu bari bàyyi naa ko bu yàgg moom bàyyi naa ko bàyyi naa ko li ma bëgg wax mooy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu day mayug yàlla gu jógee fa suñu boroom ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk woon rahma muhdat jamono dafa tumranke woon leerug yàlla soo sépp lëndëm lislaam tumranke ñu baax ñi nekk ci tool bi di liggéey sëñ Moxtaar Sugu nag moo ma wax li may nattali dama doon jéem a firi ajaaba ni xayru baaqin fihi qad taaba kulli waraqa bi ma lii qaada aqtaaba ma firi ba nappi ca waadaan la woon sëñ Moussa la àndaloon itam sëñ Moussa la àndaloon ca màggalu sëñ Ahmadou Tasrif Sougou ñu dem ziara sëñ Muxtaar may may jéem a jël kàddu di di sob soblu di yëm firi ajaaba nii te sëñ Moustapha sax mën na ma woon jëlal kàddu waaye santal ma sëñ sëñ Moxtaar mii na ndax sama magam di wax a wax daal lu rafet rafet ma may jéem a mënoon naa waxi mu rek sëñ bi mi ngi lay sant ma ci jéem a dugal loo xam ne waaye nag ndokk bi ma bi ma ko ci dugalee amee naa ci am njàng bi ma firi ajaabani xayru baaqin fii xataaba kulli a raqa bi ma li qaada aftaba yonte bi salaa salaam dafa wax ne yow yàlla sa diine ji boo bëggee mu dëgër nga dugal ci ñaari omar yi kenn ci ñoom yàlla dogal Umar ibn Xattaab daal di dugg islam dëgër ma ne Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee yàlla jox ko jamono dafa dafa wax ne ci chartub aqtaab yi nañ ñëw na aqtaab yi ñëw bala maa bala maa maa jël jamono aqtaab yi ak abdal yi ñi waroon posé candidat ñëpp dañuy rocc seen candidature jiital ma ma ànd ak ñoom liggéey noonu laa ko fiire woon man sëñ Moxtaar ne ma doon noonu man ko sugg maa ngi tuub nu mu mu ne ma ni sëñ jéer yi wax rek laa lay wax mu ne dañoo nekkoon ci tool bi di liggéeyal yàlla nee na ñuy bay ba ci digg njolloor am ku dal ci tool bi gaaw lool am mbay te rafetle ko nee na di bay ba toll ak ñun di bay di bay di bay ba mu jàgg mu bay ba ba ba bay tool bi wàññiku sëpp gob bi jàkkaarloo ak ñun te sanu xaal wax ak ñoom ñu mel ne suñu boroom dafa teewe jataay ba ci alamul xeyal nag la ñuy waxe nee na ñu gestu seen seen borom daal di seen sëriñ bi ñoom ñëpp aqtaab yi te ak aqtaab yi day neex yàlla mu tànn ci xutbul xaw sa waaye foofu neexut a waxe foofu noonu ku xamul tus kenn du ci wax moom ak dara nee nañu ñu gestu ne ko léegi rek suñu boroom ne leen dem leen ne ko jaajëf mooy jox leen ko seen bopp rek ni ko jaajëf ah, am na ñoo xam ne am na lu leen indi waaye fii du waxtaanukaay sëñ Jéeri dégg na sëñ Tubaa lool sëñ Moor Xari Si dégg na sëñ Tubaa am na ñu dégg sëñ Tubaa nag sëñ Jéeri dafa ko tuddee doomam yépp turu bis pencam moom mu tuddee ko doom ñu bari xamuñ ko turu bis pencam ahmadu tasrif tur wi sëñ Tuubaa di rango médaayam yi yatasarrafu fi mulkillahi subhanahu wa ma yacha te xam nga yàlla moom moom moom lépp moo kàttanal yonent yi kàttanal awliya yi waaye moo dëpp kàttan sëñ Tuubaa bis yàlla dana ko may ci nguuram gi ak ci sañ bi mu jëfe mu jëfe fa coobaram joo xam ne ci lépp ci coobare suñu borom rek lay tegu foofu lay tuddee ahmadul mutasarrif alladi yata alladi yatasharrafu kayfa yasha seen jiir yi tuddee ko tur woowa ca maxaam booba te ñëwagut sëñ Mor xëri si dégg na sëriñ bi ndax bu sëñ Tuubaa nekkee ca loolee mu nekk day mujj péncam yàlla mi awliya yëpp di tiim di yëqumtiku waroom tarixa yi di yoxamtiku anbiya yu jiitu woon yu bari di yoxamtiku di yéem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ki ko yàlla may muy sëñ Tuubaa bu boobaa nag bu ñu yéemee ñoom ñépp day am kàdd koy koy wax ne hada xalqullah hada xalqullah kii man yàlla maa ko def ni mel loolu bis pénc la moo tax sëñ Mor Xarit si gàttandiku tudd ko sëñ hasa si ma bëgg ngeen xam ne li ngeen am lu baax la yéen folklore bi doomi soxna yi wàññi leen ku ngeen delluwaat ci der yi am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne gañewuñ dara pertuñ dara dara yi ma maaduda yi lu dara ci ñoom bu ñu ko amee rek baax na waaye sëñ mustafaa ni meloon laa bëgg ñépp jëm koo mel dama fay ñëw ab bis waxtu julli jot ñu xaw a maanaam di waaj daal moom nag kilifa kilifaa nga fa nga xam ne dafa sant sant sama sëriñ bi ci kaw Cheikh Fadal Sëriñ bu buñ nappee mu ne ma sëñ lu maag yow nañ góorgóorlu ndax ñi yëwuñoo ak ñoom dafa baax rek waaye man xam naa ko mu ne ma ñun dañoo war a góor góorgóorlu góorgóorlu gi mooy dañoo war a am fu ñu àgg te ñuy sëñ bi demaaleel na leen mhm. waaye moom sëñ sëñ jiiri demaale nag ci dem yu njëkk ya waaye dafa bëgg da da ko wóor na kenn la fexe ba doon kenn mooy mbir mi sëñ bi toog la ko tàmbalee ci sëñ Fall maam ba sëñ Modou bu si jàng sëñ Modou ñaq ñaqal nañ ko fii rek fii ci Jolof nekk ko bu fi sëñ Fall masaa ñëw day taw te nawet bi àgg na foo xam ne dañoo bëgg ba da nga jóge jógee mbàkke mu taw loolu laa bëgg daw bi soxna yi bàyyi ko xel loolu du loolu loolu fal ko doon da ko maye de soxna bintu salaam jërëjëf <laughs> sëgu fara jërëjëf jërëjëf gis nga loolu caaxam da ko maye jërëjëf suñu baaw ñëq ñëqal nañ sëñ Modou fii ne ko bu fi sëñ Fallu saa ñëw dee taw waaw sëñ Modou fi ne daa war a taw di mu daal di tàllal loxo yi ñaan mu taw fekk naa fekk naa si yeneen baaraam màggalu Mbàkke Bari mu yéex a taw lool ñu wax la ñu waxoon sëñ Moodu sëñ Baara sëñ Baara sol mbaxana mu ñuul ak weer yu weer yu ñuul ñu wax rek ne ko Mbàkke ba lañ koy jóge day taw ndax Jolof soxla na ndox soxla na sëñ Baara toog ba mu yàgg mu ne fii ci baas bi la ñuy fekk ak jaaro yu bari fii kero cérémonie bi ak gudut loolu ñaari yëf dana ko maye gëm gëm gëm gu wér ak jëf ju mate sëñ Mahmoudan doomi sëñ Madiba Sylla la dafa wax ne mag ñi dañ xamoon mooy jub kocc jaamu yàlla gu wér bëgg sëñ Tuubaa gu wér ak liggéeyal ko ak wóolu ko loolu ay folklore du ko may nañ delluwaat ci der yi te li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na allahuma inna nasaluka tuxaa wal afaaf wal xinaa wal aafiyata fi dunya wal axira ak ñaan la waaye loolu ay pratique moo koy maye da ngay fexe ragal yàlla wattandiku liñ fi war a bàyyi nga teg ko boo ba noppi soo ko defee yàlla dana la joxal dana la jox yi boppam ma mafatihul xëy bi la yàlla yor nga xam na fa moom la nekk dana dana ko ubbi ngay janoog moom di tibb di indi loolu mooy xinaa loolu soo ko defee da am jàmmi àddina jàmm am jàmmi alaxira jàmmi àddina mooy loo soxla yàlla defal la ko ku soxla mu jaar ci yàlla defal la ko sëñ Moustapha foofu la nekkoon am na dëkk ba mu ñëw fii ñu def ko nañ defoon suñ muur toñ toñal ko lool sëñ Moustapha nee na ma bind ab baat ci sama loxo bi tàllal nii rek ndox mi sotti loolu ku bind du ko jot bind ab baat rek ba def ko de day am lu ko jiitu yu bare bare toogaay yu bari am na mel na mbokku taalibe moo xam ne nee na sëñ Moustapha ci boppam dama ko doon yóbbu bara ci sama oto boobu oto bi oto bi ñëwagut am na daal mbokk moo xam ne moom la war a kay yóbbu ma fenn ñuy ñuy daw waa ji nee sama digg bopp bi ŋaalo bi mi ngi métti métti koo xam ne waaye maa ngi maa ngi am jom rek di dawal waaye sëñ bi jàpp na ne xamu ci dara muy daw bi jaag mën na ko diw sa ŋaalo bopp wi nar a xar nii mënuma ko wax ma di ko ma ne ko ginnaaw xam nga ko kay te waxuma la ko saafaral ma ko léegi nee na mu jël loxo bi teg ci bopp bi daal am ñoom jàng mu daal mu daal di sadd guy waa jooju sax nee na moom méttitu bopp sax far da ko da da ko xam nga loolu lu ko may sëñ Moustapha moom wax man ba Alaaji fal lu ubbee jumaa ji ba bi mu wàccee liggéey amul genn jumaa juñ fi jum julli ci Tuubaa te sëñ bi loolu karaama la de loolu karaama la de diiru ba alaji fallu ubbi jumaa ji ajjuma ju njëkk ba ajjuma ju mujj julli ji na dimanche la génn àddina samedi dimanche alterné diggante boobu rek nga xam ne amul jenn ajjuma ju mas a échappé loolu loolu loolu faw doomi soxna yi delluwaat ci ba ci dolli ko mooy jaalibatul baraaxi bi da koo fonkoon loolu di ko jàng-jàng mu bari diggante mag ay xeeti tur yàlla moom loolu du waxtaanoo mbedd moom waaye lam waroon def lépp mi ngi koy def di julli waxtu yow war a julli fii saxaloon na fi kaayal boo xam ne bu ñu añee ba noppi dañuy jàng kaayal kon yow mi ba noppi saxal ay jëfi mbaax ci nit ñi du denc dara ku tumburanke ci wërsëg mu jox la ku mu faj la ko faatu mu ñëw julli la di tudd ay doom daje moom ci barab yu bari kër sëñ Maguette Sène laa xamante ak moom mu ñëw fa di tudd doom sëñ Maguette seen woo ma ne ma suñu sëriñ di fi ñëw mu ñëw nuyoonteeg sëñ Moussa Ba lañ ko fa nuyoo lépp da koo lem di ko lem di ko lem ba mu def ab dànk mu ne ma ko jëyi ma buuxante ak moom mu ne ma faw mu yóbbu ko ma wax wax wax mu ne ma danga ko yóbbu daan man man alaaji fàlloo ma lépp mu ne ma man sëñ fàllu alaaji fàlloo ma defal daal ne sama bàjjen moo ma yëkkati ñëw jox ma alaaji fàllu mu am lu wax loola wér na ñëpp tollu diggante lii sëriñ bi di wax man man am naa ci seere seere si moo di sëñ Moustapha képp ku ma sa jógee Ndakaaru nelewa fa boo ñëwee balaa dem ca armeel ya boo ñëwee wax ko ko mu ne la wàcceel naa ko kaamil ba noppi képp ku ko mas a wax tàkk ko ku faatu bala ngaa wax dara mu la wàcceel naa ko ba noppi sama ndey ca la bokk sama doomi mag juñ naa Touba Ndiaye ca la bokk Moodu Ndiaye sama doomi mag ca la bokk ci doon lu ci sama kanam la ak ñi nga xam ne nii maa bokkoon ak ñoom daayira dañu yaakaar Serigne Touba daa ñëw fii mi Touba kum ci doon ku ne ko ko tàggee mu ne ma wàcceel naa ko ba noppi nañ dem denc. Mare. fa maam ya baay fa maam ya ak baay ya nekkoon fa la ñu war a nekk fa maam ya ak baay nekkoon fa la war a nekk kenn wërta nangu sa baay gën la lu xamul lu tax sëñ Saliou doo ngay xel koom yi dafa am jamono joo xam ne lépp daa teew ñam yu neex yi yére yi jot gi boo bëggee ñëw Tuubaa ñëw mu wuuteeg ba sëy bi sëñ bi door a ci daara ya nam mettee woon am ñu mujj ñu ñëw ne ko ah Mbàkke baa ñi ñu jiitu woon du ñu ëpp ak pay ndax ñun kat tumburanke ci dara sëriñ bi ne leen aw yoon de foo ko dabe rek maanaam foo ko dabe rek fa ngay yéege da ngeen a tombeek foofu yoon wi kon nag koo xam ne sa wayjur ba muy tàmbali di yéeg di jëm ci yàlla di yéeg di jëm ci yàlla ba àgg fa mu war a àgg fa nga tàmbalee te alxaq naa bihim duriyatihim la boo góorloo dañ lay tong fa mu toll ba noppi nga door départ bul nangu mu gën la ñuy wax ne al waladu sirru abihi boo ne barit rek sa sa secret wayjur ngay jógaale moo tax doomi sëñ Tuubaa yi nanguñu ko woon a bàyyee kenn sëñ Tuubaa moom du ku ñuy séen waaye ñoom def nañ jàmbaar de def nañ njàmbaar bu kenn nangoo bëgg yëf yi rek naan yëf yi dem na jeex na day déedéet déedéet lo loolu bu ñu waxee ne yoon wi du jëm ginnaaw kanam la jëm te ñun suñu bopp ñu jëm ginaaw kon loolu loolu wax la joo xam ne dañuy firi maanaam day firi maanaam day weddi boppam day def tanaqud dañuy wax ba noppi weddi ko nañu royaat ma ngi ñu baax ja ci seen jéego ya sëñ Moustapha digganteem ak doomu aadama yi ci yërëm leen ci dimbali leen ci jàppale leen ci gëm guñ ko gëm ak wóolu guñ ko wóolu loolu li ko yàlla boole ci sëñ jéeri ak sëñ daam ci la li ko sëñ Fallou defal ci la waaye gontal na boppam gont na gont mu rafet moom wax ne ma fekk dama fee ñëw ne ko man de sëñ bi damaa bëgg a delluwaat nag ci sax ci la sama maam nekkoon di ko di ca liggéeyal Serigne Touba muy alquranul karim ndax man sama maam bi muy bi Serigne Touba dem ci géej gi ab kaamilam la yóbbaale Serigne Touba Cheikh bi Serigne Touba nekkee njaareem dafa jël juróom-ñaari doomam bindaloo leen benn kaamil boo xam ne kenn raxu leen mu ubbi ko yem ci Gafuur Rahim mu ne leen xam nga lu sama borom di wax ak yéen ñu ne ko xanaa mbàkki nga laabere ñu. mu ne yuuxu dana jibe fu ñu ko foogee mu mucc ngeen ci ak lépp lu aju ci yéen waaye sama ndigal yéen mooy ngeen saxal ma ci alxuraan cheikh mahamadul moustapha sugu ma ne ko dama bëgg fa fa mag ña teggee seen jéego yi ci liggéey sëriñ ci waa ci alxuraan man tam ma teg fa sama sama tànk roy leen ca ndona la te bokk ca ña ko gën a mën a sàmm fi ne man ca daara ja laa jóge nii léegi ci la bàyyi woon naa yu bari nag waaye sëñ Moustapha jaral na ma toog ci jotaay yi waaye ba jotaay yu bari bàyyi naa ko man ma bàyyi naa fal ko loro amatuma yàlla xam na ko mu ne ma waaw góor sëñ Fallu day xam boppam ma ne ko bëgguma tukki fenn man bëgguma dem fenn man damaa bëgg sax ci liggéey sëñ Tuubaa lépp di ma fekk si mu ne ma sëñ am nga ko ne ma man mii du ma fanaan Ndakaaru te saa yuñ laaj sas wu jëm ci sëñ Tuubaa damay joxe sama sas ba nopp am lu ma yëkkati aw ñaraas daan mu tombee ñu am luñ doon laaj mu ne ma joxe naa lim sàngam yëkkati naa lim sàmm sàngam teg ko ca aw ñaraas daan na ma sëñ Fallu man du fanaan fenn guddi guddi Tuubaa rek fa ma mën a dem loolu mooy liggéey bi loolu mooy jëf ji sëñ Moussa ñu bari duñ ko mën a fay waaye man xam naa ne man duma ko mën a fay wallahi alazim am na bis boo xam ne dama fay ñëw doon def kooru ngàtt nga fekk mu defar añ mu ceyib mu ne ma sëñ Fallu ñëwal ci xewlu ma ne ko man de segudement wor mu ne ko wax bi nga fii ñëw mu ne ko ah maa ngi jégalu de baax na rek nañ xewlu mu ne ma kon doo dem te toggaluñ la ndogu wallahi alazim daa yónnee ca marché ba ñu wut ndawal ak yi ca war a yëpp mu ma fii ngay doog timis nga xewlu naan kafe li nga war a def sa kër lépp ñu defal la ko fii sama diggante moom àgg na ci noo xam ne lu baax lu nekk ñaanal na ma ko daa am benn bis ma ñëw fii mu jox ma ak kurus na ma taril ma ijabatan tuzahzihul a'daa bayit yu nekk ci jalibatul maraaxib dama sëñ lu defal na la ci ijaaba te man loolu wóor na ma ne am naa ko li ma ko wax a tax ma ñemee ko wax eh, moom ma ko wax te moo tax man fi ne toujours damay wax ne man kenn dong laa bëgg nuru muy sëñ Fallou man bëggumaa mer bëggumaa yàq lu baax rek laa bëgg def lu ma waaye def baax na waaye wóor na ma ne lu ma ñor moo ko ñaan yàlla def ko wallahi alazim demuma sëñ Moustapha ma ko wax ma gëm ko te ba ma ko waxee ba nag ni wóor na ma la ma ñaan maam su ma ñoree rek moom am na boo xam ne dama fay ñëw mu ne ma sëñ Fall li ma gis démb war moo tax nga ñëw fi ma ne ko ah mu ne ma waaw mu wax ma yu xóot yoo xam ne du ma ko wax moom fenn. ker la ma ne ma sëñ Fallou sama diggante yow ni ma la bëggee barkib sëñ Jéeri la wax barki sëñ Jéeri barki sëñ Daam barki sëñ Fallou su ma étasé sama kër gii ci kaw naa la fi jox néeg boo xam ne waqfu lillaahi lay doon moo faatoo kenn du ko doon waaye wóor na ma ne defal na ma ko sëñ Moustapha xam naa ci moom lu bare bare bare bare li ma wóoru mooy wali yu kaamil la ku gëm sëñ Tuubaa la ku Cheikh Mouhamad Lamine Baara bëgg la Cheikh Mouhamad Lamine Baara ku mu bëgg la ndax man ànd naa fa moom ànd na moom ci sëñ Baara ànd naa fa ak moom aw yoon àndaat naa fa moom bi bi nekkee jataayu sëñ fan sëñ Tuubaa waaye wóor na ma ne sëñ Baara bëgg na ko lool. ah wasalaatu wasalaamu ala rasuli al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin Cheikh Mahamadou Fadal ñi ci nga daaneele rek fa lay yëkkite ndax kàddu yi daam solo lool wóor mu mën a yëkkati kàddu ndax samay kilifa ñoo fi nekk euh, Serigne Mouhamed Hanbal bi moom moomoon kàddu bi te incha allah dana ko yëkkati <coughs> waaye ba woowee ay nit ba nu ñëwoon leeral leen solos la tax nga woo leen da ci am solo euh, sëñ Fallou Sylla lii nga nu defal rëy na ci noonu lool xam nan bu baax sa tolluwaay xam nan xataay gi xam nan yitte ji ndax wax nga ko léegi <coughs> lasta muhaadiran walakinnaka ibnun min abnaa'i cheikh Mouhamadul Moustapha hunaka waladu sulb wa waladu ruux anta min awlaadi ruuxi kon loolu lu ñuy seerale ci yow ndax seq nga ak moom loo xam ne jaar nga ak moom foo xam ne wax dëgg fa yàlla ñi ko fekkee te seera ko xam na ne xootoon ngeen lool kàddu yi ñu la joxoo it loola rek lañ ci doon sàkku mooy leer googu ngeen seqoon am lu ci ball mën a dem ci xolu nit ñi ñu mën koo jariñoo mën ko yóbbuloo ndax jotaa solos jotaay bi mooy bu fi jógee am loo mën a yóbbuloo sëñ Fallou daa wax lu am solo dafa wax ne doomi soxna yi nan góor góorgóorluwaat <coughs> ndax legetu kese naxitu béy walla walla fa man nag bind boobu moom jël naa ko mel na ne mel na ne man man man ngay waxal jàpp nañ ko te danañ ci góorgóorlu incha allah waaye waaw suñ fàll <laughs> li ko waral dañ bëgg a leeral suñ boroom wa kadalika naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bihi fuaadak loolu suñ boroom wax nettali yi ñuy nettali jaar jaaru ñu baax wala ñu leen di fàttaliku jubluwaay ba dëgg-dëgg mooy ñu mën cee jariñoo mën cee jël ab ab bind buñ fi jógee mën a góorgóorluwaat mën a jàjjikuwaat ndax sëriñ Daam Sougou mi ni defal bis bi ak sëriñ Moustapha Sougou mi ni defal bis bi jàpp naa ne ëpp na ñuy dund noonu te duñ leen fàttaliku duñ leen bàyyi xel duñ leen duñ leen dun leen duñ leen yëg fu nu toll la ko waral mooy dañ ñoo yar ci diine yaruñu ci lislaam damay wax ne sëñ sëñ bi nit du wax ci baayam waaye damay wax ne man awma fayam la ko waral mooy dafa sonnoon lool ngir ñu jàng mu jaraloon ko loo xam ne xam naa ne noonu ci suñ bopp man ak sëñ ak àggoon nañ ci di wax naan kii est-ce que bëgg nañu ngir coono yoo xam ne doon na ko toggoo ngir sunum jamono te ku <coughs> bi ma amee doom lay soog a xam ne bëggoon nañu waaye daa bëggoon ñu tege ci yoon bi ma amee doom yi lay soog a xam ne jël sa doom yóbbu ci daara ja muy jàng du lu yomb ndax man fooguma ni fam ma yóbboon may jàng dinaa fa yóbbu sama doom muy jàng yaakaaruma ko bokk ndax coono ya ya ci nekk te moom mu jaar ci ba noppi jaar loonu ci kon moo tax nun jàngal nañu ban waree jàng yar nañu tamit ndax xawma yaru na noonu déet waaye moom yar na def na la ko war dama mas a ànd moom ñu jóge ci jumaa ji julli it boo ñeeku ñu dugg ci oto bi ñu dox ba tolloog kër Sëriñ Abdou Fatah ñu gis dàmbale mi dàmbaabu mi di dox ab taalibeem bu nekk ci kër gi la mu ne lii mas naa ko gis gersu ne ma wàccal ma wàcc moo war daam na ko yéegal mu yéeg ñu dem waaye nekk loola am njàng la woon njàng moom doon jàngal na jataay bii nag eh, dañ koo def rek ngir mu doon loo xam ne nit ñi danañ ci mën a jàngatee mën cee fàttalikoo ko mën cee dolli ko fi jógee am loo yóbbaale ndax bu fekkee ne dañ koo def rek bi mujarradi itaami naasi faqat loolu amul njëriñ parce que kenn ku nekk foo nga jógee danga fa lekk da fa naan waaye wax jii ngi fi wax dafay wax joo xam ne ruuxiyan kenn ku ne am na loo ci mën a jëriñoo kon sëñ Fallou dañ lay sant bu baax dina gërëm waaye kàddu gi sax muy gudd bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci bis bi di ci sonn di ci def seen alal ak seen ñaq sëñ a Diop mi dana wax seen tur ñoom it kenn amul seenu pay waaye njabootu sëñ daam Sougou gi ak njabootu sëñ Moustapha Sougou gi ñoom ñëpp danoo laxasaayu àndandoo ci mbir mi mbir lépp jag loola nag dafa rëy ci man ndax manoon nan ma koo bàyyee waaye dunoo takk seen digg lu ca war lu nekk ñu def ko ci <coughs> te loola bu leen sooboon dañuy toog rek fas seeni tànk waaye xam naa ne yéene ji ma am ci mbir mi ñoom am nañ ci lu ko raw kon ñoom it dañ leen sant bu baax euh, su njabootu Cheikh Moussa gépp tàmbalee soxna maam Jaara njaboot gépp noo ngi leen di sant di leen gërëm cant goo xam ne sunu xol lañ ko tibbee di tudd cër buñ leen jox ci bis bi loolu nu bëggoon koo leeral ndax ñii nu koy defal buñ leen ko defalee la leen war ci bis bi danañ ko def buñ leen ko defalut la leen war ci bis bi danañ ko def waaye danoo seet seeni maam toppoon sëñ Daam Sugu daa ko guddil daa ko bëccëgal bi mu fi jógee ñu topp sëñ Moustapha te boobu sëñ Moustapha tuut tànk la ci zahir waaye ñu jàppale ko taxaw gunge ko ba mu ñemee seenu njaboot tamit ba ñooy jaar fa seeni maam ak seeni baay jaaroon loolaa waral nu sàlloo at mu nekk ñu jël ñaar ci taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Dame Sougou jox leen ci ay cër ngir dundal kóllëre gi ak fàttaliku leen ñoom it ñu xam ne ñoo bokk yem ci mbir mi képp ñu bokk leen ci ñaanal euh, bàyyi leen ci xel fàttaliku leen ci loolu moo waral sabab si ñu defee ko nii sàkkuwuñ ci dara bëgguñ ci dara ndax buñ ci doon wut leneen danañ ko defee faneen waaye li tax ñu def ko foofu ci biir kër gi mooy noonu yi ma ko waxee bëgg rek kóllëre gi gën a dëgër bokk gi gën a dëgër ndax gis naa ni it suñ borom mi ngi ci defal sutura ndax kun ko def rek danañ gis ne da nga ci am mbégte da nga ci am yëg-yëg sa xaw doxin dana gën a yokk loolu rek lañ ci jublu woon ñii leen jéglu bu baax ci waxtaan rabbi a'uuzu bika min amasaati sayaatiini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun rabbi israh li sadri wa yassir li xawli wahlul uqdatan min lisaanihi yafqahu qawli assalaamu aleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonantam sallallahu alayhi wa di sant xaadimul Moustapha di sant ay jëwriñam ah, di sant ki nga xam ne nii moo fi nekkat Serigne Touba tey di Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bassir di sant mboolem lu aju ci kër sëriñ Fallou di sant waa kër Serigne Jéeri waa daan te mu tàmbalee ci sëriñ Muxtaar Sogu ba ci ka ci gën di tout tànk bàyyiwuñu kenn di sant taalibe yépp di sant dëkkandoo yi di sant am gi jàmm yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu xeebu nuyoo bu woyof nuyoo taalibe ak moroomum taalibeem ñu doore ko ci asalaamu aleykum wa bis bii nga xam ne nag moom la yàlla dogal bii nga xam ne moom la yàlla dogal mu dox ba yegg si nii tey li nga xam ne nii moo ci am solo ñu yëkkati ko mu di ak ñaan ci biir ñaan googu ah ñu seet ci ñi nga xam ne nii ñu daal liggéey la ñu boole leen ca biir ñaan ga jël ca ab cër jox leen ca ñooña jëmm ji nuy waxe ci lañu ci koy waxe ñi nga xam ne nii sëriñ Ibrahima Ndong mi nga xam ne nii moo àndoon ak sëriñ Daam ñu bokk nekk ca kayal mu doon taalube doon ku déggal sëriñ daam di fa liggéey liggéey bu mat sëkk ba ñibbisi fa nga xam ne nii fa la dëkkoon mu di mayaay la nga xam ne moom la fa liggéey jële ko fa day nun de wumpalewun ci dara ndax day ku dégg xasaayit ci mayaay di ko fa jàng mbaa nga di ko taxawe yàlla ak sëñ Ibra Ndong la génn xasaayit gu mu doon gune gum mas a kenn mësu ca am lu muy xibat fu do ca tund wa wépp ñu di ko ci gis ci moom melokaan woowa ak taxawaay booba mu taxawe ko joxe fa la nga xam ne nii mooy fullaam ak faydaam ak darajaam axub taalubeem ba dëkk ba bépp di roy ci moom ak taalube waaye lañ koy roy roy roy de man de la ma ca fekke ci sima tollu nii nga xam na yàlla day baaxeende na ma samay at lu mu néew néew làq naa juróom-ñaar fukk waaye day la ma fekke ci moom ca jamono jooja ba yegg si nii tey day gisaguma ku ko taxawe ca mayaay wala ku ko taxawe fu ko jege ci Pastef ak nangoo liggéey ak yaru njabootam jubal leen jub te jubal leen kenn mësu koo yab ci dara kenn mësu koo béeféer ci dara lu mas na dana am day kenn du ca teg baat ci la ma daan fekke ci mayaay lu mas a tànkam kenn du yëkkatib tànkam fu mas a joxoñ ndaxam moos daañu ko ca bàyyi ca mayaay te lépp fullaam ak faydaam akuk taalubeem te lu mas di def lu ne ci taalube la ko daa teg daawul waxe bakkanam daawul lekk ba regg waxtu bu mu doon bu ne laxasaayam gi man lu bari dara wumpu ma ci ndax yàlla dogal na fu mu mas a dem fu mu doon fu ne marik tuut tànk topp ci ginnaawam fu mu a dem ñaare maag sama mag Amet Njaay nun ñaar lay woo u ànd ak nun nu ànd ko doxi ñii di ak njabootam mu tàmbalee ci Asan Ndong ak soxnaam sii di soxna Ami Ndong ak njaboot gi nga xam ne ñoom la ko bokkal wax dëgg yàlla la def ci ñoom day ak ki nga xam ne nii moo nekk fee ci waaja daan jolof muy amet ndong ak ñi topp ci ñoom amul ci kenn koo xam ne nii boyal na la laat mi ump ko laat mi ump ko xaadim rakkam ump ko ñu jigéen ñiit it noonu la leen def yar na leen jàngal na leen jubbanti na leen teg na leen ciw yoon ñi ngi koy ñi ngi sant nag di gërëm a ah, wax ji nag daa nekk loo xam ne lu yàgg la waaye day kii nga xam ne moom lañ sédd bis bii ku mat bis ku matal ci bis ku mat ku mat a jox bis bi la li ma daan fekke ci moom ci taxawaay ci kër gii ku mat a jox bis bi la jox nañ ko bis de waaye wax dëgg yàlla ku ko mat a jox la ku ko mat a jox la moo soxnaam sa nga xam ne moom la nekkaloon muy soxna Ndaama Ndong soxna ndaama nger ba ci ki nga xam ne nii mooy mbokk mi ma gën a jege mu di Marème Fall di ñaareelam njaboot gi mu jur ñoom day wax dëgg yàlla ñu moom bis bii lañ kër gii lu ma sax xew ci kër gii amuñu soxla ci tuubaa fenn seen laxasaay yi ba ba ñu koy tekki delluwaat ca seen néeg yi loolee day lu ma xam ci ñoom la njaboot gii nag sëriñ bi li nga xam ne nii moom lañ ma sa moom lañ ma wax li wasalaatu wasalaam asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di siyaare te leen baal te leen balwaaq nun njobootoog soxna Asta mbay di ay sët noo teew fii ci bis bi parce que yéene jëmmal ndax sëñ Fallou Sougou mii danoo fii danoo séddee sunu maam bis bi te sunu maam jooju nag dafay bàyyiwut doom li mu fi bàyyiwut doom nag moo tax nun ñi nga xam ne noo di ay sëtam nu ànd taxawu ko ndax ñi fi des moom mooy mbenn mbay ak fat saadi ñoo ñoo fi des ci ay doom yoo xam ne yii ñoo fi des ci waa kër nge ceeneen gi kon nag li nga xamante ni mooy wàllu ceeneen gi ak wàllu mbéyeen gi ak wàllu ngereen gi ak wàllu këneen gi ak wàllu ndaween gi ak wàllu jaañeen gi nun ñëpp maase nañ ànd ñëw ci jëmmal bis bii bis bi nag moom dañ dañu ko séddee ndax sunu maam di Asta mbay bi mu demee dafay bàyyiwut doom waan nag mel na jooyut doom te liggéey ba mu liggéeyal sëñ Moustapha Sougou képp koo xaay ne kii dëkk nga sura wala dëkk nga ceeneen xam nga ko ndaxte moom demoon na bañ naan ko Baye Fallou sëñ Moustapha Sougou mu liggéey fa liggéey bu rëy sëñ Fallou mi nga xamante ne bii moo fi nekk dafa dem di ko nemmiku guddi ak bëccëg ba ni mu wàccëb liggéey moo ko taxawu kon noo koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko àjjana firdawsi ci barkeb sëñ sëñ Jéeri Waadaan yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla na ko def njaboot gi nga xam ne bii moom la ñu àndal tam muy Modou seen ñoom ñii ak Mor seen ñoom ñii ak Baye Touba Ndiaye mii doon wax ci kër gi la bokk ndax Baye Touba Ndiaye moom mi sunu nijaay la sunu kilifa la sunu lépp la kon moom noo ngi koy sant te di ko gërëm te di ko ñaanal ah sëñ Gora Diop mi nga xamante ne bii tam moo nekk ci kër gi tam laxasaayu di dox di dox li nga xam ne war moom la war a dox fu mu mi ngi nuy soññ mi ngi nuy ñaax ak Modou Sène mi nga xamante yi bii lu jaar ci moom dina ñëw ci man man mii de sama kër lañ defee lépp fa lañ defee waxtaan wi fa la ñu déparé fa lañ jógee kon ñoom ñoom am ma seenu pay mbir mi nag yegg na foo xam ne lott naa ci sax li ma bëggoon a wax lépp ma wax ko jërë ngeen jëf sëñ bi nag yàlla na nga fi yàgg lool te wér yàlla na nga yàgg lool te wér soo ko faara yàlla nga fi yàgg te wér ak njaboot sëñ jéer yi gépp sëñ daam ñoom a ngi nekk sëñ mban ñoom ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare ak sëñ jili mi toog ci bank bi ñëpp maa leen di siyaare jërë ngeen jëf aqulu laa ilaha illa allah kulli wala ilaha illa allah محمد صلى عليه أفضل من أرسله إله نبينا أحمد نور الأنبياء والنور رسول الله إن ربي كتاب أحمد ابن عبد الله خزينتي وزان لي أن الله سلت بسر مكاتب تزور أخمدنا ميسير لما يزور سعادة في القرآن والنبي ما جاد لي بساهر والمغفي عدا لي الله بالكتاب وبي نبي بلا تيابي ربي لاي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد كرامتي كوني عبد الله خديم عبدي ابن عبد الله رسولنا أحمد سيد الإله صلى لي وكفاني الضر الله جزى الإله ملتقى خير الجزاء في كل ساعة وسعة الجزاء بيت بلا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله بيت بلا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله déglul ma wax la melow Seex Jiiri Waadaan njéem xamuloo ko kooka mooy borom lan waare aajoom la yàlla faj ba ñëpp xam ko wulil ku réew mi ba ñëpp gëm ko jërë ngeen jëf bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci ndigalal sëriñ daam sugu mii moom sëñ daam joor teew fi teewal fi sëriñ maxtaar ak njabootu sëriñ jeri gépp ñuy wax ci ndigalam ak ci turu sëriñ daam moom sëriñ maxtaar ak sëriñ moodu sugu ak njabootu sëriñ jeri ki fi nekk yëpp xam naa dañuy gàttal ndax jataay bi yàgg na te xaw naa guddi te sëriñ Fallou Sylla yëkkati na fi ay kàddu yoo xam ne si daanaka teg ci leneen du yomb ndax takkoogum takkoo war ak sëriñ Moustapha ci xisse yu wóor yu leer nañ sëriñ Fallou ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di bég ci kàddu yi di nuyu sëriñ Fallou ak njabootu sëriñ Daam Kayel gépp te buñ ko waxee mooy njabootu sëriñ Moustapha Sougou ak njabootu sunu bàjjan soxna bindu Salaam. te sëriñ Modou Babou teewal ko fi ak ay rakkam yëpp sëriñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax a baax di jël nuyoo boobu di ko jàllale ci soxna maam jaara ak mboolem ay rakkam yëpp di am mbégte bu baax a baax ci teew gin teew fii ci sa bis bi bis bi ku fi ñëw daaw ñëw fi daaw jéeg ñëw fi ren xam nga ne am na yokkute bu baax a baax te yokkute googu li ko waral mooy sëriñ Fallou taxawaayam ci nit ñi ak ci njaboot gi du tànqam lu dara kenn ku ne day jëflante yow jëflante bu gën a rafet moo tax ay mbiram nii rek la mën a demee yokk rek lañ ciy yaakaar yàlla na la ko sunu borom gën a defal nga gën a taxawu bis bi yaa njaboot gi yëpp sëriñ daam nag wax ci moom du doon lu yomb waaye danaa ci nettali rekk digganteem ak sëriñ jéeri tuuti ak digganteem ak sëñ Touba Sougou ndax dafa soxna si nekk ci kër sëriñ Jéeri dafa mës a ñëw ci sëñ Jéeri na ko man de danga maa bëgg nga ñaanal ma ma am fi doom ju góor sëriñ Jéeri ne ko Touba mee day boo ko ñaan boo ko ñaanloo su borom mën na la koo defal ne sëñ Maxtaar nee na mu dem xotti am mbubb nee na mbubb ma mbubbum naat la mu ñëw jox ko sëñ Touba Sougou ne ko ñaanal ma sëriñ Touba Sougou ñaanal ko ci la sëriñ daam ganee àdduna sëriñ daam ganee àdduna dox tuuti sëriñ jeeri woo soxna si woo sëñ daam sëñ daam nekk xale ku euh, ab tuutànk mu woo sëriñ tubaa sugu mu ñëw mu ne ko sëñ daam mi teg naa ko ci loxo yi sëriñ tubaasu sugu boo leen teqalewut danañ dem ba ab toolam ñu koy teqale ak sama tool sëriñ jeeri wax ko ko moo tax bi sëriñ bi sëriñ jeeri jógee ñu dem ba sëriñ daam war a dal jàng sëñ sëñ Touba Sougou dafa ñëw sëñ Modou Moustapha wax ko ko ne ko sëñ daam di dafa war a dal jàng sëñ Maxtaar nee na mu yëkkati ñaari saaku yi ceeb jox ko nee na sëñ Touba Sougou ni mu def ñaari saaku yi mooy dafa jël benn bi jaay ko jëndal ko ci ay téere bi ci des mu jël ko jox ko sëñ ma dem boole kook sëñ daam sëñ daam nekk fa di jàng di jàng di jàng ba géeju lool ci xam-xam ku xamoon sëriñ daam xam ne ku géej woon la ci xam-xam ku ku yaatu woon euh, xam-xam la ba mu ko defee ci kóllëre googu ci diggante sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Touba Sougou ak sëriñ daam ci loolu la sababoo ba sëñ sëñ Moustapha gënee àdduna mu tudde ko sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha jël ko yóbbu ko kayal may ko fa ak kër looloo tax ñu naan sëriñ daam kayal waaye tur mi ngi jóge ci sëñ Modou Moustapha ndax moo ko jël yóbbu ko kayal sëñ daam it jël ab taawam tudde ko sëñ Modou Moustapha sëñ daam nekk fa ba suñ borom defal ko fa barke bu mag bi sëriñ jéeri doon wax mooy mbooleem taalibe yi sëriñ jéeri yi newoon foofu nekkoon njàmb ñi nekk bangaaj ñi nekk feneen ñëpp ñëw jébbul ci moom loolee nag di dox di dox ba ci sëñ Moustapha mooy it mu ñëw noonu yi rek la fi nekk woon kon li ngeen wax ci sëriñ Moustapha mu ngi ko doon ne ci way juróom wa sëriñ daam ndax sëriñ daam ñëpp xamoon nañ ne wàllu yu la woon daraan def ay kiimaan yu baree baree baree bare bëri jamono ji nag dafa toll foo xam ne nett li ay kiimaan sax dafa neexatut a def waaye nag du tee léeg-léeg comme ni ko sëñ Fallou si la defee ñu di ko ñu di ko ñu di ko defee noonu ndax sëriñ Abdoulahat nee na woon fa man saa afal yu'min fa man saa afal waaye boo toppee aaya ba ba ca jeexalukaay ba xam na gën a gëm moo gën weddi kon mbir mi lu metti metti ak lu jamono soppiku soppiku du tee ñun liñ gëm ñu di ko wax te muy dëgg ci ñun kon sëriñ Fallou ñu ngi lay siyaare bu baax a baax barke bi newoon sëñ ba sëñ daam ak barke bi newoon ci sëñ Moustapha ak mbóot yaag yëpp yàlla wàcc si yow wàcc ci mboolem njabootu sëñ daam gi wàcc mboolem njaboot sëñ Moustapha Sow gi ak njabootuk sunu bàjjan soxna Bintu Salaam di sa di nuyu bu baax taalibe yi nga xam ne si ñoo jàpp ci bis bi te sëñ góor a nekk seen jëwriñ ñu taxawu sëñ ñu taxawu sëñ Fallu ba lépp mel nii mel ndax lépp yéen a kon sëñ góor a ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax leen ñaanal ci barkeb sëñ Jéeri taxaw gi ngeen taxawu sëñ Fallu te yàlla rek tax ak sëriñ Jéeri yàlla ngeen dajeeg pay ga àdduna ak alaaxira tudde gii ngay tudde bis bi nag saa yu ñëwee nga tànn ñaar ci ñi àndoon ak sëriñ daam kayal di ko def loolu lu am solo la waaye dafa gëm a dafa gën a amati solo ci ñun njabootu sëriñ Tuubaa Sougou ñun ñi dëkkee Waraan Jolof ndax da nga koo tudde kenn koo xam ne si muy bàyyi Ibra képp koo tudde bis mi mel ne ñun ñii nga ko tuddee ndax ba sëriñ Tuubaa Sougou jógee waadaan di dem Waraan Jolof dana ko man foo nekk foofu laay nekk daal di jóge ma yaay dem Waraan Jolof dëkk fa kër gëm fa fàkkoon ba nëgë ni ak njabootam ma nga fa di ko dundal kon lu waaye defal maam Ibra Ndong njabootu Sëriñ Tuubaa su nga ko defal kon ñun bégg nañ ci tudde gi nga koy tuddee waaye gën nañ noo béggati bi nga ko tuddee Baye Ibra Ndong di suñu maam di suñu wayjur di lépp ñu ngi koy ñaanal moom Baye Ibra Ndong yàlla na yàlla dolli ko ay leer suñu boroom dolli ko ngërëm lépp lu mu liggéeyal sëñ daam kayal liggéeyal ko sëñ Tuubaa su ko foofee ca Waaraan Jolof yàlla na ko fekk ca ca barsàq te suñu boroom kàttanal ak njabootam jàppale leen dimbali leen teg leen siraatal mustaqim yokk seeni i bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki taalibe yi noo leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi teew ci baas bi te ca soo ba léegi ñu toog fi toogaay bu yàgg boo xam ne yàlla ak jëmmi sëriñ Fallu ak waay waajuram wa doo nga tax ñu toog ko fi kon ñoo leen ci wu coono bu baax a baax di leen ci ñaanal yàlla suñu borom defal leen ci lu kawe seen njort bu loolu jàllee taalibe yi ne ci kër gi ka gën a mag ba ka gën a ndaw ñoo ngi koy cant-cant goo xam ne am na tàmbal waaye amutub yamu ndax lépp lu woote ci kër gi kenn ku ne da ngay yaakaar ne yaa ko war a def bàyyi sa morom muy depuis ba fi sëñ Moustapha nekkee ba léegi la tàmbali woon bi mu fi jógee ñu joyal ko ci sëñ Xaadim bi sëñ Xaadim jógee ñu joyal ko ci sëñ Fàllu mi lépp lu mu fi woote rek loolu daañu ca def ba def ca lu kawe njort man 87 laa fi ñibbisi 87 ak léegi nag ma fi ñibbisi ak léegi sëñ bi jël ma teg ma ci digganteem ak daa taalibe yi am am ci doyloo goo xam ne defal ni ci loolu kawe na sama njort daayira bii ñu koy defal 90 laa ko euh, sos daayira bi di dox ba léegi te lu ma leen ci laaj sëñ bi du ne ma yokk ko du ne ko wàññi du ne ma wàññi ko man maay seet sama coobare rek ne leen ab sàngam yokk naa ko te duñu xalaat ne waroon ngaa waxtaan wala dara lu ma leen wax rek bu màggal ga ñee daañu ma ko jox te duñ xalaat ne jënd naa ko lii wala jënd naa ko laa lu ma leen lii laaj jënd rek loola la ñuy gëm kon ñooñu awma seenu pay yal na ma yàlla fayal te liñ bëgg ci sëriñ bi yal na leen ko yàlla defal barki sëriñ Tuubaa وسنة المصطفى البيضاء

وسنة المصطفى البيضاء تكفينا بيضاء وسنة المصطفى البيضاء

مسكني دار سلامي كما بالمكة والمدينة أمين بدار فتاتنا دار سلامي كما دار سلام الهدى لي ولا أبقي به بدلا فسنة المصطفى بيداء تكفيني أمن بدار فتى روبا لمسكني دار سلام دار سلام بدلا أبقي به بدلا سنة المصطفى بيداء تكفينا ومن بداية فتى طوبى لمسكنه دار السلام دار السلام وابي صلاتي تاوس جوائزة نكل ما يلي فاخذت راسي يا رب بيوا اكتفيت به ولا سترادي خير العلم والدين تغني كل ما قلت واسبي يا رب بي واكتفيت بي ولست رادي خير العلم والدين جوائز تخلي ولا استرا دي خير وديني خيرال من بمبلين ولا استرا دي خير ودي خيرال من بمبلين ولا استرا لي خير علمي وديني خير علمي يا بامبا لنا ولا استرا ودي خير علمي وديني ولا استرا ودي خير علمي toogaay jeex na maa si leen di taw na ñu ma ko xasal xayral Cheikh Bamba nee na wala sora di xayral xayral hilmi wala tutu arjo ولا أخسى سوى ملكي لأنه جل يقليني وينجيني توس جوايسه توس جوايسه ولست أرجو ولا أخشى سوى ملك لأنه جل يغنيني وينجيني أبواب صلاتي توسع يسر خيرا عني أفوض أحوالي لمن أجسر الأعلام حجس المساكين قالوا لي أركع لأبواب صلاتي لي توس جايسة أو كيف يبوى سني بلو تاميلا يا رمان دون روض السياطين إن كنت سأسأل أو كل أدفاوة داو تلا نقل للراء وسيني كنت سأسل أو كنت أو كنت أو كنت أو كنت تغبب ليلة إن كنت سأسل أو كنت سأوتر داو للراء وسيني ايوا بون نغو نجي لاسي دي تاخو تي كون ماغال سيرين سيرين جيري وادا ماغال بي ماغال سيرين سيرين جيري وادا يا نغام تي نغات ماغال حسين سيام بامبلينا كل دوسا ازا أو كل أندسا ودر أو أبتلا للراء وسيني أو كنت أو كنت أو كنت أو كنت سيغ بابا لنا وهو المؤمن الذي لا شيء يعجزه وهو المكون سأي تكوين كنت سأسجل أو كنت كنت سأسجل أو كنت كنت سخي بامبابا ñoome xarbaax sëriñ beeleel mayut seex abdurahman ndam seex masamba seex adama géy seex ma baabu Seex Bamba ba nga amee xar baax sëriñ bee leen may baax ñoo jar saare Seex Mudu Saxiir Mbay Seex Daaru Asan Njaay Seex Xamtu Seex Saajin Seex Mari Ba Mor Maane seex yi nga seexal mësuñoo jeexal li baaxal sa bamba seex isaa jem seex jiri waa daan sugu Babacar Cargaan tafsir buubu sula borom Tuuba seex yi nga seexal mësuñoo jeexal mësuñoo jeexal li mu baaxal sa mbira Bamba ana waa waadaan ana soppe yi seex moodu jeeri naar ba ca waadaan baayu ahmadu tasina borom waadaan seex yi nga seexal mësuñoo jeexal li weew baaxal sambiro bamba ana waa jeexal baaxal borom ba daan seex yi nga seexal mësuñoo jeexal li li baaxal sabira bamba baayu seex ahmadu tasrif baayu seex bamba joor seex moor jeeri waa daan jagada bay maam say njaay faal sa tool waay kawe na yaay waay yaay waay bamba Cheikh Ibra Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal faal njaga kawel nga paal leeral nga njaayeen njaayeen tedd lañ leeral wari diinaay faal yaay lamp ban ba Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Fall njaga yaaram leeral wari diinaay faal yaay lamp ban ba Cheikh Ibra Fall leeral muridina fal yaay lamp ban ba ay seex moo doon benn fal leeral muridina fal yaay lamp ban ba ay seex Abdulaay Ndar fal leeral muridina fal yaay lamp ban ba bàyyi Seex Abdoulaye Ndar Baal leeral muy dina bal yaay lamp ban bal bay faril Cheikh Ibra Faal Baay Faal bi leeral muy dina yaay lamp ban bal Baay Faal leeral muy dina Cheikh Ibra mari diinaay faal ah. yaay lamp ban ba Cheikh Ibra Faal ah, Sëñ Fallu moo sañ ci def di dindi kuréel bu gindee xamal la réew mi Sëñ Fallu mbooloo mi Sëñ Fallu sama waajaa ngi maa ngi ñaan tudd taxaw ca kër njukkal Sëñ Fallu yàlla nga tàggoog tànk yu duggul taxaw te ñu daal di ko seen tool. ni ma seq fadulu. ni ma seq fadulu. seq loo ma sa am na. loolu am bi isnil baay. ku lamb andi seen fàllu. ñëw fekk fii sëriñ xaarit ki la jox ko ko. yàlla nga tàggoon ñett ba sa ñëw leen def andi seen fàllu na ko. mi ma Seex Fadulu mi ma Seex Fadulu Seex Fadulu laa loo ma sa wax am na loolu am na Seex Fadulu baayu Seex Moodu Buso Seex Murtada Seex Fadulu laa loo ma sa wax am na loolu na. bi isnillahi sëñ Fallou. seex Fadilu. baayu seex seex Modou Xabaal. alaaji am na. loolu am na. bi loo ma wax am na. ana waa Ndindi. ana soppe alaaji Fallou. la ma sa wax am na loolu am na bi isnillahi sëñ Fallu la ma sa wax am na ayu Cheikh Murtada juma alaaji Fallu yaa jotum sunu maam jaaratu la sunu maam jaara bu sa bu rëy nga fi diine fi diini laay borom dindi alaaji fallu fi diine alaaji fallu diine nga fi diine alaaji fallu diine lay demoo nun muriidu lay sëñ Fallu alaaji Fallu sëñ Fallu sabar ma naa la jaajëf jaajëf ma dina jaajëf imam de jaajëf Sidi Lamin Baara Baara Aminata Lo baayu Seex Sidi Maxtaar sama waaja yal na yàlla dolli baay sal Seex Saaliw Mbàkke baay sal Seex Saaliw ana baay sal Seex Saaliw Mbàkke baay sal tibal te dolli nu tibal te dolli Bamba la jox lu moo baax moo baax moo baax borom waa daan Seex Mooru Jéere baax li lee ma di royukaay lay di baay te daawul digle lu aay yal na dolli leeram baayu Amadu Tafsir Mor Dieng lay di baay te daawul digle lu aay te daawul